ndax ñun ñëpp comme euh, nuñ ko constaté ñun ñëpp ci marche bi nga xamante ni marche euh, nationale bi nga xam ne waa mouvement ñoo lank dañ ko bëgg a fii ci dakaar ak ci yeneen régions yi ci Sénégal te départ bi ñu bëgg ko jëlee Université Anta Diop dañoo woote woon ndaje mi pour def alerte nationale de même que international mais di ci jiital nag suñ mbokk étudiants yi yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci université Anta Diop parce que marche boobu noonu mun na favoriser li indi problème fii ci campus bi te tey fi ñu toll nii vu la situation li ñuy ñaan bëgg ko ñun ñëpp mooy campus bi am apaisement pour que suñu rakk yi fi ne mën a dem jàngi normalement mën a admis seeni examen normalement am réussite bi nga xamante ni seen i mbokk ak seen i waajur ñoom loolu lay xaar ci ñoom parce que université Cheikh Anta Diop kenn ku ci nekk xam na ne opinion nationale bi wala internationale bi image bi mu ko jox par rapport ak situation yooyu noonu rafetut donc tey jii nii dañ naan étudiants yi fekk ay nit ñoo jogee ci biti di manipuler étudiants yi wala ñuy nekk ay intrus ci biir étudiants yi di def yoo xamante ni tey du day day yàq deru étudiant bi moo waral suñu taxawaay bii nii nii nii tey. loolu daal euh, je pense que bon li ñu ciy ragal rek mooy déstabilisation parce que suba ku ne xam ne ne journée la boo xamante ni étudiant depuis euh, la mort de Balla Gaye ba léegi journée la boo xam ne étudiants yi dañ ciy fàttaliku dese Balla gay ak suñu yeneen mbokk yi nga xam ne aussi ñàkk nañ seen bakkan fii ci euh, xeexu étudiants yi ñu leen ciy fàttali mu doon journée boo xam ne journée la pour jàng alquran jàng ay xasida ñaanal leen fat fàttaliku suñu mag yooyu noonu nga xam ne jiitu woon nañ fi aussi tamit di delloo njukal seen famille yi pour wan leen na leen du ñu dem muk di fàtte suñu frères yooyu nga xam ne tey jii nii si xeexu étudiant si lañ ñàkkee seen bagaan maanaam journée la boo xam ne tristesse la si étudiant donc bi ñu toogee di sentir yenn euh, marche yooyu noonu wala menaces yooyu di jëm si suñu université bii nii buñ ci waxul rek dañuy nekk ay responsable moo waral ñu ñu ñu ñu ñu ñu prononcé wu ci situation boobu.